suñu rakk la ñun la bokk Jules Baldé junior mbër la feebar bi xaw a yàgg ci moom metti lool ay mbokkam mag ñëpp doon ci def ay pexe lu ne jëm nañ ko ci mais yàllaa ko bëggee nii yàllaa ko tuddee nii waaw moo tax ñu koy jaalee je parle au nom tous les lutteurs du Sénégal xam nga moo tax ma koy jaalee mbër yëpp di ko jaarale ci turu association nationale des lutteurs du Sénégal di di di di ko ñaanal Euh, yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko aljana ñu ngi koy jaale mbokkam yëpp ah surtout Ama Baldé bi nga xam ne écurie la nekkoon surtout les Pikinois écurie yi nekk ci Pikine écurie yi nekk biir Pikine yëpp làmb ji yëpp daan ñu nekk ñu koy jaale parce que tamit euh, mbir bi muy xewee jëm nañ ci ay pexe nag de gauche à droite waaw mais tamit yàllaa ko bëggee nii mais nag ñu ngi koy jaale mbokkam yëpp di ko jaare xaritam di ko jaare ahlu làmb yëpp. ba waaw mooy mooy loolu mooy feebar mooy euh, feebar ñàkk prise en charge ñàkk euh, taxaw bi war yooyu parfois artistes dañ koy subir parfois monde sportif da koy subir loolu rek moo gën a tax waa moo war a gën a tax ñun mbër yi ñu gën a ñu gën a jàpp suñu biir. association bi nga xam ne mooy association nationale des lutteurs du Sénégal ñu gën a jàppante suñu biir gën a organisation la boo xam ne depuis que ma yàlla defee ma nekk ci bopp bi ba léegi maa ngi def ay réflexion ci yu mel nii mooy euh, bien-être des lutteurs mbër bu feebar faju mbër bu nekk ci ay jafe-jafe ñu taxaw la xam nga euh, ana carte de membre mbër bu feebar association bi jël la prise en charge mbër bu nekk ci ay jafe-jafe parce que ku sañoon foo mënti nekk ci addina rek soo nekkee ci ay jafe-jafe gis say mbokk loolu nag li koy waral mooy booloo nekk benn comme ni ko association yëpp defee xam nga boo xoolee lii tey c'est les cartes du lii tey c'est les cartes du carte de membre yi euh, carte de membre association bi la c'est des nouveaux pour euh, mbër yi nga xam ne dañ nekk Sénégal yëpp bokk ci association nationale des lutteurs du Sénégal ñu fexe am ci carte de membre yi parce que tamit organisation boo gis lu lu waay du wuyoo da koy nuru parce que lii tey moo ñu moo ñu jox doole. li tax li tax tey lii moo tax tey état bi reconnaître les lutteurs jox ñu gëdd bi ñu war a am jox ñu ah, li ñu yellool tey boo xoolee je te donne un exemple ci euh, Covid 19 bi tey boo xoolee organisme yu bëri ñu ngi réclamer seen ay euh, subvention état bi ñu lay jàppale. état a reçu cent milliards cent milliards deux cent mille francs. bu ñu demee tey ba les musiciens ñu jël un milliard cinq cent teg ko seen loxo les communicateurs traditionnels amul acteur bu secteur bu ñu bu état bi subventionné wu tey mbër kan moo ñu gën a impacté kan moo ñu gën a sonn ñun nga yaakaar bu ñu amoon tey ay fonds fonds de boo xam ne état bi da ko ñëw tey teg ko suñu loxo nga yaakaar ne tey ñun mbëri mbëri ku ci feebar tey état ñun duñ la ñun en personne duñ la jël en charge dañ la dimbale ñun soxla ñu ko ñun tey ñun on doit s'organiser d'une manière boo xam ne ñun ñëpp jàppoo suñu bopp pour am ay pour am ay fonds yoo xam ne tey ku feebar suñu biir tey ñu bañ a ketal parce que yooyu xewi na ñun waaw ñun ñun na loolu mais nag dem koy je lance appel au à tous les lutteurs du Sénégal pour ñu jox gën a jàppante suñu biir association bi na ñëpp ñëw jënd carte de membre yi di cotiser xam nga parce que tey projet yi ñu teg yi ma teg mu nekk suñu kanam bari na yii ci la bokk mooy bien-être des lutteurs mbër bu feebar tey association jël en charge faj la loolu nag lu koy indi loolu du ay waxu kese liggéey la di ci woo mbëri yëpp di ci woo Balla gi surtout les surtout waaw ñun euh, lutteur mosuñu compter ci CNG waaw bëgguma sax di wax di parce que quand je parle euh, sur CNG on dit que dama am benn compte te loolu man dépassé naa loolu damay lu ñu wax ci suñu waaw lu ñu wax ci suñu naqar ne parce que moom moo loolu moo ñu fi indi tey moo ñu fi indi parce que tey loolu beneen jamono la mais tey li am importance mooy CNG moo ñu war a defal lii CNG moo ñu war a defal nii non non CNG na gérer gérer ñun ay mag lañ ay kilifa lañ ay responsable lañ moo tax je lance appel surtout nag ñi nekk ci kaw kaw ñoo war a gën a taxaw les ténors pour ñu gën a ñëw dooleel seen ay rakk. parce que tey je te donne un exemple Gris Bordeaux karkaaram macha allah yàlla dimbali na ko ba feebare mën na faj boppam Balla Gaye noonu Modou Lo noonu Eumeu Sène noonu Ama Balde Boy Niang mais yoo xam ne tey nii comme mënul woon boppam lu bari kon nag ñooñu teg nañ gën a jege association bi xam ne lii nga xam ne tey ñu ngi koy dox li ci jëm ay pexe pour ñoom la pas pour ñun xam nga nañ gën a jege association bi état bi tamit na gën a bàyyi xel mbëri parce que tamit l' état a xam nga a reçu cent et quelques milliards mille milliards mille milliards du cent franc mbëri am nañ ci part boo xam ne tey état bi waroon na ko jël teg ko seen loxo parce que ñun kenn gi ñuy impacté bu bu nekkee impacté rek Covid bi ni muy laalee yeneen secteurs yi noonu la ñu laalee. mbëri ba ñu gëj a bëri gën a kan la dañuy am ay problème dañuy suñu rakkee dañuy feebar duñu faju cas yi cas cas yi am nañ ci plusieurs am na ci ay suñu pap yi ay ñoom suñu pap yi nga xam dañuy feebar mënuñu faju mais tamit nañu état bi bàyyi xel mais nag malgré tout ça maa ngi liggéey liggéey boo xam ne di ci woo mbër yëpp di ci woo képp kuy mbër rek nekk ci làmb ji rek maa ngi la ci woo nga gën a jege parce que tamit mbër mbër mbër mooy mbokkam mbër mbëray bokkam te bu ñu booloo nekk benn say lépp lu ñu bëneel bëgg lijjanti Sénégal gi nañ ko lijjanti